jàkkaarloo ak may sa waali jon booy geloor jog na dégg na turu George Bush ne ko na ñëw maag moom combat la waaw tey mooy <laughs> ah non man man loolu jaaxaluma li ma gën a jaaxal xam nga lu may waaw combat bii ñu ngi ko tuddee commerçant bu mag muy Aliou John Kati Junior waaw place Kati mu ngi nii fii nga koy signal <laughs> cey cey bii combat mbin la nga fii daal ngay signé yaa ngi nii ah mbin la nga de daaneel na kii bi xaw ma nag ndax dina daaneel kati wala déet voilà Isa kii nga xam ne moom la ko tudde mooy Aliou jon ñëwul tey jour ba dana ñëw mais li ci gën a am solo mooy dafa jël doomam def ko photo bi ma téye ko ngir tele bi gis ko drapeau baa ngi nii diggante mbin la nga moo féete nii ak Kati Junior combat bi mooy combat boo xam ne suul na grand combat yi ci àddina bi yëpp toj na TikTok bi toj na Twitter bi toj na Facebook toj na réseaux sociaux yi foo jaar man fu mu ne nii fu ma jaar ci Ngunjaan damay taxaw rek nit na ma père taxawal sa ñaari kom mbër yooyu foo leen jële noo def ba taxawal combat bi ma ne ko ah business production fa jaar. nuyu naa lay fay. waaw du nuyu ñëpp du nuyu ñu ne ci yëpp waaw waaw du nuyu ñu euh, promoteur bi tëgg combat bi waaw te xam ne combat bi neex la teg ñu koy ñaanal réussir total xam nga di nuyu nag adversaire bi la nga maa ngi koy bu baax a baax di nuyu mbëri fi bëri xam nga du nuyu ñëpp du nuyu Assane mais di ko ñaana yal na ko yàlla may ndam xam nga du nuyu ñëpp xam nga naan Kati Junior ñëwul. après Aliou woo ma ma pour ma ñëw présenté lu présenté wu pour Kati Junior quoi comme soriwu ma fi waaye mil la sama rak la sama xarit la sama lépp la xama Kati doon suñu gara frère xama waaw li ñu def xëy na peut-être maanaam dañ koo mënta ñàkk a def rek moo waral ñu ñëw pour signer ko yooyu noonu waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax moom booy bu yaru la xama waaw mooy loolu mais nag ñun mbuur naa la ñu dëkk quoi mbuur naa la ñu dëkk nguñaan la ñu dëkk noonu la demee. <laughs> man de li man li moy nappande ba commencé na nee ko mbir la nga ko yarul la ak napp nako est ce que mbir la nga da nga soloon benn mbaxane gisatuma ko anam. moy si ginaaw ah bon moy ni ah. Mm. ma wa waa la nga li nak affaire la rek gaayen. ah waaw. yow kati ngay beurel waaw kati wow, waaw rakkam la hmm, rakam ne ah, da nga yaru xawma da la nepp xawma da bañ nga wax. Ah lutax waji ñewul ah lolo, ma jaaxal de man. nen bi lutax ñewul nen bi. ah. nen bi du lacc lutax ñewul nen waaw nen bi. amna lutax ñewul tax nen <laughs> ah kati kati ngi fi de pourtant kati mu fi de mu ci xamna xamna dafa gën rek xamna mo tax ñewul waaw kati dafa gën rek waaw mo tax ñewul waaw. nen bi boo ko suulee da koy suuli mu gen fii euh. suur ba duma yu métti laa koy duma xam nga man li ma jaaxal sëñ Fallou <laughs> ma moom moo mooy moo moo kati senior moom combat bu neex la moom combat boo xamante ne moom xam na. xam naa li jaaxal nen la ko tuddee nen nee na kati nen la. <laughs> waaw mais est-ce que du kati ah kati xam naa defa génn nag xam nga mais en tout ñoom ñaar combat bu neex la combat boo xamante ne xam nga. Hmm. mbuus naax nguñaan yëpp a koy xaar xam waaw ñu bu ñu la nag. ñoom ñëpp xam waaye en tout cas combat la ci biir combat daal xam booy ndekki di nga def baxal de man non bàyyi naa nen baxal kay fu mu waaw. katee tax nga bàyyi nen baxal. non sa waay ni mu koy waxee moo tax ñu mujj koo kii quoi. waa léegi nen bi nen baxal la wala nen ba bu bu ñorul. nen bi boo ko wootee rek boobu la. waaw ndax waa waa Mbusuna yëpp nañu wagaru di di di ndekkee nen. Ah. waaw ndax am nañ nen boo xamante ne. Hmm. arrêt bu ma ko door day toj. Ah waaw. non yow kat yi ñëwul. ma lu tax ñëwul loolu moo ma jaaxal. nga tuddee ko nen. maanaam moom lu muy sori sori dafa waroon teew fii. ah barki yàlla. loolu naar ci moom suur ba. suur ba. Ah. naa ko duma duma yu métti. ah barki yàlla. mais est-ce que dégg na ay mbokk ngeen est-ce que dina fa am mbokk ki ay duuma ak yooyu. déedéet bi du feeñ léegi. ci ah. kanam lay feeñ. après ah. combat bi. mais gisuma mbokk taay naa ko duma duma yu métti. Hmm. barki yàlla. ah waaw. man li ma jaaxal. matul cuuc sax. ah ci Serigne Touba Mbacke. ko jàppee du yu métti laa koy duma. ah wallaahi maa la ko wax. bu taxawee du am ay seconde to lii ko nga teg ko fa maa la ko wax ay seconde du ko am. li ma jaaxal kati nee na bu la dóorul nga daanu bu ma ko fay. kon bu yeboo na na dajale wol ci stade ba stade Ngunjaan ah. na dajale wol yi pour génn stade bi ndax naa dina génn stade bi de. bu dee bu dee ma dawrul ma daanu na dajale ay wolisam hmm. waaw pour génn stade bi ah maa la ko wax biram dalay dóor nga daanu yow ah? loolu la wax moom waaw moom est bu dóoree sax mooy daanu <laughs> loolu daa am fi ma ko teg mais xam ne déet bi ngeen njëkkee jàkkaarloo dala ne bul ma fay ma dóor ko mu daanu ñu doog ma fay noo moom ku ku yoo la yor ku ku arem kuyo wow yo men yo bi nan wow. mom buma laalé fi sunu ko sentir ndax lo bi da melni sipsi lo bi sipsi la to atalu sama ko kati dor na fi joj jagn mu daanu dor na fi joj sar dor na ko wa da dom ki rek dom ndeyam rek muy dora ak mom ah bon domu bajanam ah. muy dora ak mom ah suba ngeen gis lu garaw kan ngay woo man maay woo waa Ngoundiane yëpp ừ. waaw di waa Kër Sonko yëpp bàyyuma kenn ừ. billaahi su ma limee rek xama demay juum parce ừ. que si waa Ngoundiane yep laay nuyu fii ba jaag waaye bàyyuma fenn billaahi wallaahi mais toj ko TikTok bi la caaxaan sanen bi waaw addina bi yëpp a koy coow saa waay nen la xanaa gisoo bopp bu weex bi daa bi jaaw ba suulu nen la nen kese cuuc see matu ko cuuc cuuc see matu ko waa mbus naax mere nañ la de. barki rasulaay su ma ko jàppee. Mm. waa mbus naax dinañ ma gën a mere mais nag am naa am naa fa ay fañ si nag loolu moom xam naa ko. mais mm. bu ma ko jàppee. Mm. dinañ ma gën a mere. ndax bu ma bu ma jiitalee tànka mu yaakaar door lay door lay indi bu indee door ma door ko bu indee boore ma daan ko maa ko ëpp bëre maa ko ëpp xee. barki alxuraan. mais dégg naa moo la ëpp doole de. doole waaw. xam naa nen bi moo tax ñëwul rek. tabaski bi jot na di. Ah. waaw. loo ci na lu mu nekk nen moo tax ñëwul. Ah. moom bu taxawoon fii. Ah. nga xool ko dañ koy ne yow waajoo dara. loolu moo tax ñëwul di yow yow combat bi bu mu taxawee ba léegi. moom demul entraîné ji. loolu moo tax mu kii nii di dem entraînement ci ngoon gi. nga yaakaar ne daa ragal moo tax ñëwul. bu yorul pompe pompe yaram yi. mënuma ëpp doole. bu pompewul yaram yi man ma ëpp doole. ah waaw. ah te man de dama dégg ne dafa dem seeti saaf ndoon quoi. seetiwul dara daa laqu rek. waaw. looy tàggatoo. maa ngi sant waa Ngunjaan yëpp. waaye ma hmm. kenn su ma limee rek juum. Hmm. bilaahi. Hmm. waaw may gërëm ñëpp na kenn. rawatina waa jaag. waa Mburuwaay. non Mburuwaay. waaw ko moom bul Mburuwaay. déedéet moomu fa dara barki alxuraan Ngunjaan laa la wax hmm. Ngunjaan hmm. foo man a yor oto dem fa hmm. maa fa moom même même fu mu dëkk fale mbus naa sax barki alxuraan ci partila rek mais maa fa moom maa la ko wax ah. parti la rek mais maa fa moom am na waa mbus naa yi lay xeer waxuma côté mi nag mais barki alxuraan côté boobu maa fa moom maa la ko wax <laughs> ñu tàcc ko bu baax a baax Mbédou Langue Lamine Laga Kati Junior xam naa ne combat boo xam ne euh, ku tardé dugg ba yaa ngi ci erreur waaye tam am naa yaakaar ne ku dof-dof lu ba fekke woo bëre ba dootoo fekke dara. parce que tam xale la mais xale bu gëm boppam ñëwul dakaar toog continuer ci lu ñu continuer woon ñun. muy dem baara ñili ah ñun ay baara ñili la ñu woon de ah, xam naa waa télé bi nañ ma reetaan waaw ah Adja ma la parfois Adja la eh yow may mat. nangam bul ma sonal fekk na rek ndeysaan dañu doon wut rek lu ñu am waaye nag da ci boole woon ak dem di jàng métier. mën mecce dem ubbi entreprise am yor ay xale di leen tàggat man mi moo defar sama kër ñu ko ñaanal jàmm bu baax ñu tàcc ko bu baax daaw dañu di kenn ci pare yi xam naa bu fa ñëwee moom ay ciment plate rek ay fil moom dana fa bari.